moo gën a simple président Macky Sall se rappelant contexte bi ñu ko fale ak xeex bi am ak bakkan yi ci ron ak yenn situation yi nga xamante ni am na ci réew mi yi nga xamante ni ça failli faire basculer le Sénégal ci yenn yi ñu fal ko ci mu am cette aspiration populaire bi nga xamante ni sénégalais yi sur yenn question yi euh, ñu bugg mu doon un vieux que de vieux souvenirs mais li ngay wax ni yëpp xam nga lan moo koy régler que le président Macky Sall il se rappelle que lui maa ngi gis benn photo keroog euh, sa prochain invité euh, il était à côté de Macky Sall mooy waaye mu ngi sol benn t-shirt non à la au troisième mandat lan mooy xam li koy régler mooy que Macky Sall se rappelle qu'il s'est battu contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade que bi mu ñëwee réglé na question bi ci biir constitution bi wax na ko waxaat ko mu bind ko ci téere mu xam ni troisième mandat c'est un facteur de déstabilisation des pays en Afrique mu rappelé wu yi amoon Sénégal ba mu waroon basculer justement pour prévenir yi ngay wax ni mu ne je ne veux pas mener mon pays ma nation vers cela donc ni ma ko waxee te bindu ko ci téere de façon très très claire mënuma ko parce que constitution mayu ma ko première chose mais deuxième chose mais lan mooy ndeyu aussi yow par des entourloupes pour xaw ma lan ngay jël ay candidats di leen mais non mais que tu te au-dessus de tout ça ni képp ko war a bokk du ma galgal kenn naa ibbi bi mu am un candidat bi nga xamante ni dama koy ngemb mu indi toutes les autres alternatives ñu taxaw et puis offrir au Sénégal une opportunité bu graaw pour une fois ñu fal président quoi bañ a sanctionner un président qui veut fair des micmacs ak yooyu pour une fois donner l'opportunité au F24 de pouvoir exercer une pression sur la classe politique bi nekk sax ci biir F24 mais peuple sénégalais bi tu vois non mais mais mais mais mais je t'ai parlé a un travail et tu verras mooy que pour une fois offrir aux Sénégalais la possibilité de voir toutes ces alternatives mun leen déglu mun leen saytu mun a am ay échanges sur les programmes sur ku nekk lan nga bëggal réew mi et que ñu mën a fal un président mu doon beneen pas ci suñu démocratie beneen pas ci le rayonnement du Sénégal à travers le monde que mu poser acte boobu que vraiment Euh, jamais mais mais mais xalaatoon na sa discours bi mais xalaatoon na trop nga def ko au palais leneen li beneen bi pour kii Maïmouna Bassirou Diomaye Faye je donne juste son nom tu penses que ça justifie qu'il soit en prison autant de temps on poste Facebook waaw autant de temps que ça se justifie que nit dof autant de temps qu'il soit en prison autant de temps pour juste un live où il a dérapé mais juste après il refait un truc pour s'excuser tu penses que c'est normal que Abdou Karim Gueye qu'il soit en prison pour autant de temps tu penses que c'est normal que euh, Cheikh comment il s'appelle encore Cheikh Omar Diagne qu'il soit en prison mais tout ça tout mais jamais il n'y a eu autant de détenus politiques et de détenus d'opinion au Sénégal donc lii ngay ragalal Sénégal ki ko mën a fànk mooy le père de la nation Macky Sall et c'est